ñu ànd ceeg El Hadj Ahmed Aïdara bismillah askan wa xiif nañu de le populaire ne yokk ci njëg yi ci wàllum lekk ga boo sàgganee nag kon dana tax kon ba nit ne kon wàcc ca mbedd ma dee maaratey taali bu ñu sukkandikoo ci FAO di kuréel gi nga xam ne kon mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu mbay mi le ca way mbootaayu xeet ya moo ni directeur général bu FAO di José Graziano da Silva dalaloon na kon xel ya bu ñu sukkandikoo ci yéenekaayu France ga di Le Monde waaye tey jii bu weesoo kon njëgal ceeb ba wàllum céréale gi ca yokku la jëm de wàllu diwlin geeg ndawal la ba ca lépp loo xam ni kon xeetoo naag meew bu ñu defulee attention nag wàcc kon ca mbedd ma kon dana fi amati kon comme 2008 ba direct info ay waaye ana waa yaana maar ñu ci bëree bëri kon ci sénégalais loolee kon la ñuy laajte waa yaana maar kat kenn dalee na gisatul kenn dalee na nga xam ne dañoo taxawoon jàkkaarloo woon ak façon gu bon gi nga xam ne moom la nguur gi fi nekkoon kon doon doxalee waaye fi nekk nii kenn tëggatu leen bët moo ni day am na lu ñu wax de waaw waaw il y a de la matière parce que góorgóorlu yi fi mu nekk a dee rawatina kon ci wàllub ne men dañ dem kon ci ay vacances kenn gisu leen ana waa yaana maar biis ñenn ca ñoom li wóor mooy soreetu ñu kon fi pudee ah moo ni day am na ay kàddu yoo xam ne jóg na dee lu ci mel ni aluntin waaw waaw naqarlu bu baax a baax yenn ci ay comportement wu kilifa ya waaye est-ce kon dana dem ca mbir ma na ba sës waaye ku xam aluntin ku ne ah xam ne léegi mu jàkkaarloo kon ak système ma bi lee libération yéene kay ne c'est quoi ça ah, ma ne lii lan la aluntin ci boppam kon moo commencé nag maanaam dinu fat ni daa bëgg dara ak safaan ba ñu reyee Kékouta Sidibé Alioune Tine ak sénégalais yu bëree bëri kon dañu doon sàkku ci justice bi mu def kon liggéeyam waaw moo ne jëf ju bon ji nga xam ne moo daloon Baara Sow ak Ababacar Diagne nga xam ne dañ rey comme ni ñuy reyee ci benn foos moom Alioune Tine mii ah da doon naxarlu maanaam bàyyib na bi nga xam ne kon lankal nañ ko Cheikh Béthio Alioune Tine yamu ca dem na kon ba jël big fëyam daal di kon bind buur Fatick mais di Macky Sall ngir njiital cantakku ngir daal mu dem xooli kon wàllu wér-gu-yaramam loolu mooy wàllum exécutif de ña kon seen loxo ci wàllum si justice moo ni Alioune Tine mii loolee la mës di naqarlu ci jamonoy Abdoulaye Wade njabootug Baara Sow ak Ababacar moom mais waaw ci yéene kaay gi ne Alioune daal mës ta yëy yàbbi ci suñu doom yi nga xam ni kon rey nañ leen ca Medinatul Salaam gee moo ni day la xew ca Medinatul Salaam gee moo gën a garaaw fuuf la xew kon ca Kédougou parce que ñaar ci ay doomu aadama kon ñoo fa faat ñu rey leen ci reyin goo xam ne maar day taali jekkul ñaaw na ba pare daal di leen kon suul kumba amul nday la ñu ni kon ne moom lay def Macky sàll mi lan lay def nii ah tribune yéene kaay ne sàcc yi nga xam ne dañ ne woon kon ñoo lem suñu dëkk bi jël kon suñu alal ja Macky Sall mbaadu daa bëgg kon dencaat yatam wax ah xam nga ndoorteel gi kat nguuru Macky Sall gi la mu xamle woon mooy léppay leer Aminata Touré ministre de la justice ne danañu respecté kon yoon ci boppam maanaam wuyu yi nga xam ne ñoo nekkoon ci république bi caxat-caxatee kon suñu alal ji danañ leen teg ci yoon ne Macky Sall tamit ay auditam léegi commencé waaye ba nii ñuy addoo France daal dara ba dara booloo jeex ngir nag wan nit ñi ne la ma diggee woon kon dama koy def loolee taxoon na ba kilifa yu bare bare yu nekkoon ci nguurug Abdoulaye Wade gi ñu leen doon convoqué ñuy wuyu ji maître Ousmane Ngom wuyu ji woon na Oumar Sarr wuyu ji woon na Karim Wade wuyu ji woon na Ndeye Khady Diop wuyu ji woon na Abdoulaye Balde wuyu ji woon na Awa Ndiaye wuyu ji woon na tribune yéene kaay ne ma ne audit yii ah daa mel ne pétale bu tooy rek waroon a wax boof na te doxalin gi ñoom Macky Sall jël ah daa mel ni ñun waa tribune li ñeen kaay la ñoom ca la nekk de maanaam alal ji nga xam ne daal dañu koo sàcc daal la ca gën a takku nañu ko indi rek jéem bu ko defee sàcc yi daal di koon remboursé yéene gi ne mais xoolal leen ma Moustapha Yacine Gueye njiital MTL benn milliard la remboursé ñu bàyyi ko comptable ko se gée soxna sa jënd wàlla milliard cinq cent millions la joxe ñu ba ko réew mi ko le lay korité daa jënd korité ga lu ci toll ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ay millions 436 millions allahu akbar la njiital ko seg la woon kon joxe boo ko dajalee daal benn kër gu bakkanee bakkane ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay millions ak beneen kër goo xam ne juróom-ñett fukki millions ak benn ak liquide nii xaalis nii xoco xoco nii compté waññ waaw ñaar fukki millions allahu akbar pour mën a génn tribune ne kaay ne lii lépp nag n lii kese tout ça bu dee boo joxee xaalis rek daal di kon génn lu waral coow li bari li la suñu alal ji nga koo jël daal di Mamadou Kane Diallo daal xam naa ne am na barke deful sax weer ca kaso Rebeuss dee daal di kon mujj moom boppam daal mooy mandargaal na it ëllëg ah. directeur général société bu mu neex mën ngaa jël kon alalu askan wi caxat-caxatee ko def ca lu la neex ba pare daal di fay nag alal ju bare bari ngir bañ a dem kon ca kaso ba bel exemple de rupture daa jëf waay lii daal royukaay la gu baax ci liñ la woon woon ni na enquête yéene kay ne enquête bañ def ca port ga baara saadi a loo xam ne da ko doon tere Macky Sall nga ca ba léegi mbir maa ngay tarre un nekk président jiite tam parti parlementaire la ñu dindi fi Sénat bi waxoon nañu ko ñu bëree bëri nee nañu Sénat bi dañu ko fee a dindi bokk na ca génération sentinelle pour la république bu ñu sukkandikoo ci libération yéen waaye ñi ànd ak Macky Sall daal a ngi def ay lobbying yoo xam ni di wax ak xale yi ci suuf ngir ñoo ñee dakal kon seenu pétition bi nga xam nekkoon di xas Sénat bi démb naan Sénat bi amul njariñ alal ju baree cay dem xarañul tribune yéene kaay ne non au Sénat Macky Sall ak nguuram daal ah war kon askanuk Sénégal gi lée wi ne Sénat bi baaxul tey ànduñ ca it yow ca jamono joo xam ne fi mu nekk nii lépp farata la sénégalais yaa ngi ni sonn ba maara deytaali dañoo comprendre lan mooy ndeyu gi taxaw ne dee Sénat bi le kon ko fi boo xam ne yow amul benn njariñ alal jang cay def maar deytaali ah ñu ànd ak Macky Sall ngi ne fatt fataaral ca jamono joo jee inondation yaa ngi bëgg a rey kan askan wi lee ne nguur gi ci boppam daal moo am yoo xam ne da koo def yu defuwul moo waral lii ci inondation bi bu njëkk ba mooy amul genn tund woo xam ne kon nit ñaa ngay dee te ngacc ko atu yàlla bi yëpp loxoti wuñ kon ya nekkoon ci biir yëpp ngir ndox mi am kon fu mu jaar ñaareel ba mooy toog ba ci biir nawet bi doog a jël wàllum inondation yoo jee nga xam ne ca xujja mbay la nekkoon ñu jox ko kon kii di Omar Gueye PPC bu mbay sa job ci la populaire naqarlu nañu bu baax a baax ñàkk gis-gis gu sori ak jëf ñu gis cay waay ñaata korité na ma am kon ci réew mi le populaire ne boo sàgganee daal ñetti korité danañu fi am i <laughs> li ma la wax du dañ boo sàgganee ñetti korité ku ci ne di nga indi sa weer teg <laughs> alaaji xam naa koo xam ne ci kër gi moom premier jour korité lay julli kooku moom leer na ma nañ weer wi feeñ na fi Medina wala ma nga Tattaguine wala gingi neew lañ ko gis wala Medina sabax sa waay naan na ndox jarul nag mooy tudd tur alaaji yow kañ ngay julli yow laay déglu de boo ne ma naanal ndox rek ma góox boo ni ma woril ma kori boo ni ma tëjal ma tëj